yi ngeen jëf ñu am mbégte retrouver leen ci seen jotaay bi nga xam ne moom lañuy waxtaanee lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram fii ci Sénégal set émission bi ñu weesu nag ñu ngi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu hépatite tey ñu bëgg waxtaan ak yéen ci lu jëm ci siti ki ñu ciy àndal nag mooy ki ñu taamoo di ko defanteel muy docteur Abdoulaye Diallo di naturopathe euh, xelam màcc ci lu jëm ci feebaru cosaan waaye ànd ci ak euh, garab yu am garantie docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, sama xarit sama doomu day Jelani hmm. di nuyu Yash mon frère di nuyu bopp groupe bi ba ci suuf di leen jaajëfal euh, den baalu ak bu baax a baax di baalu ak aussi téléspectateurs yi hmm. ak tous les patients de du cabinet Ndiadéri d'accord alors euh, jamono bi weesu waxtaane woon nañ ci wàllu hépatite ak euh, développement yu am solo yi nga xam ne defoon nga ko ci ba nga waxoon ñu sax ni hépatite boo koy faj faw sax nga jaar yenn saay ci siti siti boobu nag la ñu waxtaanee tey. Mhm. lan mooy siti. Eh, c'est vrai que man maa ne woon kenn mun weer ci hépatite fekk da ngaa amee siti. Mhm. Jëlante posé nga ma question bu bu am maanaa damay faral di naan siti mooy bàyyi feebar yi bàyyi feebar yi ndeyu feebar yi biir la muy kolopati mais bàyyi feebar yi siti la eh, dinaa leen xamal ne lu tax ma ne leen siti mooy bàyyi feebar yi siti aussi germe la xam ne hépatite maladie virale la situ aussi germe la. ci deret lay buy dund ci deret. tubaab nag xamu ko. Mhm. moo tax damay faral naan tubaab télé ci lu bëri. moo tax tubaab télé ci lu bari mhm. ñuy traité waaye du ñu soigné ñun nag dañuy soigné dañuy wéral boo xoolee tubaab lim la jox dalay taneloo avec effet secondaire comme ñoom nag dañoo am sañ rek di wax ci ñun ñun dañu am sañ-sañ tontu leen parce que xamuñ ne que dans la médecine traditionnelle wala naturopathie mhm. am na ci ñoo xamante ne ñoo leen raw ñoom ci li ñuy def dañoo nag ci seen lobby nag ñoom rek ñooy nit ñoom rek ñoo xam ñoom rek ñoo moom ñoo monopoliser la santé teguñ ko feet nag parce que même alxuraan bi am na médecine. même alxuraan bi am na médecine. sama jabar te yeewoon ak biir bu métti ma ne ko léegi mu deñ ma jël kopp ndox jàng ci neuf versets coraniques tufli ko ci ne ko naan lii moom jeex na mun naan mën a ko raay ci biir mu raay même pas deux minutes mu wér amul benn garabu tubaab bu ko mën ma ñëwaat ci siti bi kon balaa ñu ñëw si si bi docteur. da ngay mm. faje ci ci alxuraan aussi. waaw. loolu xamuñu ko woon mm-hmm. nga patients yi xam nañ ko. am na ay vidéo yu ma yu ma doon ne door kat lawoon bi may def affaire <laughs> maraboutage dóor kat laa woon. on se mm-hmm. euh, bi j'ai réduit ci feebaru ABC boo xam ne ci ngelaw seetaan la jógee laa def. wala ku amee rab wala ku am envoûtement koo xam ne dañ la liggéey ba yàq la mhm. wala ku nekk extérieur soxla papier fii fii la door yi di laaj ay million man trente cinq ngay def ma bindal la yónnee la nga am ay papier nga am liggéey en moins d'un mois parce que traitement bi vingt et un jours la ah loolu rek nga koy laal xam naa certainement dañ ciy consacrer benn émission li may defaat encore malboutage mooy ci entente entre couple Mmh. wala entente entre famille famille bu déggoowut ay doomu ndey doomu baay yu déggoowut wala mmh. njaboot gi yëpp déggoowut attention il faut nag ñoom ñëpp ñu teew ci benn kër gi bu kii mmh. nekkee Canada kii nekkee Amérique kii nekk Mali kii déedéet jarul ngay ñëw parce que li ma yor man ci cin lañ koy def ci togg lañ ko def ñëpp toggandoo ci ñëpp lekkandoo ci alxuraan la rek wala fi ñuy naanee bokk naan ñoom ñëpp ñu naan ci ñaan la rek siti mm. moo tax tubaab yi télé lu bari moo tax mënuñ faj arthrose siti mooy arthrose siti mooy indi faiblesse sexuelle moo tax ñu télé ci faj ngóora garab yi ñor yëpp ay aphrodisiaque la da ngay naan benn guddi nga nekk góor pare nga ci siti mooy tax ngay gaaw daanu li ñu wax éjaculation précoce wala ñu ne ko éjaculation faciale mënuñ ko faj ay aspirateur la yor li ngay asperger wala ay garab yoo xamante ne effet retardateur anesthésie la rek benn guddi jeex na ñun ñu faj la ko ba mu wér mais toujours ngóor a éjaculation précoce yow il faut nga jël siti et attention patients yi il faut ñu xam li ñu bëgg mënoo ñëw ne da nga am faiblesse sexuelle alors que amoo faiblesse sexuelle gaaw daanu tekkiwul ne da nga am faiblesse sexuelle loolu du faiblesse sexuelle loolu éjaculation précoce la boo ñëwee ne ma eh, ngóor laa bëgg a faj ma laaj la sa 40 bi nga fay ñu jox la garabu ngóor doo gis benn résultat parce que amoo problème ngóor hmm. garabu ngóor ak garabu gaaw daal bokkut. donc il faut que diagnostic bi exact. il faut ñu laaj la. Mm-hmm. te kenn du faj ngóor jaarul ci deret bi wala ci biir bi comme tey sujet bi siti kese la. Mm-hmm. su ma ñëwee ci biir dinaa ci développé biir nu muy def ci ngóor léegi nag siti mooy tax nit yaramam di tàng am na yoo xamante ne sax ay ndoxu glace la ñuy sotteeku pour rek mu sedd tubaab xamul siti siti am na ñoo ko ne am na ñoo xamante ne buñ ko amee dañuy moytu ventilateur comme aussi am na ñoo xamante dañuy taal ventilateur rek mu ëf tànk yi city mm. mooy tax oom yi yukk yi di wow articulation yi yëpp yukk yi di wow mooy wooloo yukk donc mooy indi polyarthrite rhumatoïde mooy indi arthrose man du ma la faj arthrose wala ma faj la polyarthrite fekk fajuma la city Sénégal ñëpp city mais le problème mënuñu dem fi ñuy fajee city parce que ñëpp ay reenu Dakar ak reenu Dànq la ñuy fajee loolu fajul siti yaa yaa xayti hmm. bàyyi leen loolu day yàq rein wax naa ko waxti naa ko ci ñu laaj leen ci loo xamante ni lu jéggi dayo la c'est pas la peine man trente mille ngay fay ñu faj la siti trois semaines six sachets en trois semaines jeex na moins de un mois mooy même de vingt et un jours d'accord parce que sachet bu nekk peut-être boo defee ci bouteille bi deux deux jours lay defal deux jours et un matin mm-hmm. Donc, ça fait même pas trois jours, fois 18. Fois 6, ça fait 18. 18 jours. parce que il faut aussi siti bi des des ci yaram bi duñ ko éradiquer ba mu ba mu des ba mu jeex takk siti mooy indi ay picc ci yaram mooy indi ay ër ci yaram mais mënoo faj xasan bi ak ër yi fekk fajoo siti bi siti bi ci deret bi la nekk da ngay faj ci biir ba pare faj ci biti boo ñëwee da ngay nangoo génne xaalis nga faju siti d'abord après nga faj xasan heure mhm. xasan bi ak heure yi nga faj ko picc yi tâche yi mënoo ñëw rek ne ma tâche yi picc yi ñoo ma sonal yaram bi tàngatul naa la jox garab boobu déedéet il faut d'abord soigner le mal à la racine siti mhm. mooy joxe pied d'athlète mooy ñi nga xamante seen baaraam yi fii day weex siti day yàq ongle siti mooy tax góor yu bëri di chauve mhm. tuyam karaw siti day yàq bët bët yi di jooy mm-hmm. bët yi di flou siti moo indi avortement jigéen yu bëree bëri yi avorté ñuy dem ci fenkat yi dina naan ay rabla la wala ay liggéey la dañuy fen hmm. siti mooy avorté lu jigéen kooku wéy rek ne ñoo ma faj ko siti bëri na ni ñu koy jiiñ. ma ne bon rab daa mën a yàq biir rab c'est un esprit esprit lu mu yàqee biir. Hmm. docteur bëri na xam nga ni ngay géntee ni ngay géntee un esprit rab. Hmm. suba nga gis say règle wala boo ëmboon mu yàqu. ça hmm. ne veut pas dire que rab bi moo yàq sa ëmb. rab bi mënul accéder foofu. C'est pas possible. C'est suñ ko weddee ñoom jigéen yooyu seen yaram day tàng bu ñu seetloo buñ ko xamul bu ñu jegee seen jëkkër day naan bébé sa yaram bi daa tàng mhm. benn si ñangoog wa ilaa seen karaw day dagg di ruus wa ilaa seen nopp day riir. nopp bi riir bi aussi. siti da koy def da koy def. Oh. da koy def am na ñuy seen nopp yi di riir ñu dem hôpital ñu joxe garab tension. fekk du tension justement fekk du tension. Mhm. siti da koy def te garabu tension yi da nga koy naan à vie. Mhm. ah. oui day yàq te ñëwal ma jox la garab tension 40 mille ngay fay 4 semaines. c'est fini dootu jël garab sa tension day régulariser kenn nag du naan day faj tension définitivement ba mu wér parce que nit ki mu ngi lekk xorom ça ça ne se dit pas mm-hmm. d'ailleurs ana ndey nga faju benn affaire nga wér nga naan du ñëwaat tu continues les mêmes bêtises tu auras les mêmes conséquences mm. amul maladie booy faju mu wér mu bañ a ñëwaat day ànd ak benn comportement adapté. ah mhm. nooy jëlee garab colopathie nga naan ko nga tàggoo colopathie di continuer di lekk rii spaghetti pâtes tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout la même chose encore il faut changer ku faju colopathie par exemple colopathie par exemple tubaab day naan régime à man benn yoon naan garab bi ngi wér mu doon colopathie fonctionnelle ou chronique dinañ ci ñëw ci beneen émission. incha nee naa la moo yàq ëmb siti day tere sax jigéen ëmb parce que day perturber say règle bari na ñoo xamante ne dañoo taxaw seen rek dafa bloqué siti a tax hmm. du ma la faj règle bloqué bi tant que fajuma la siti bi trente mille après nga ñëw jël garabu règle bloqué quarante mille nii la ñuy fajee règle bloqué walla anormal toog trois mois doo gis quatre mois nga gis kooku siti moo koy def siti moo tax góor yu bari mënuñu am doom hmm. moo tax tubaab mënul faj maniw day altérer maniw bi day indi azoospermie walla mu indi asthénospermie wala mu indi oligospermie wala mu indi tératospermie wala mu indi tératospermie wala mu indi hypospermie wala mu indi hyperspermie wala mu indi nécrospermie wala mu jox la trois signes OAT ou OAN oligo-asténoterano ou oligo-asténonecro doo faju siti bi kenn mënul faj symptôme yooyu maa fi mën de ah, xam-xam la de tubaab buy docteur boo toogee sama kanam di nga jébbalu <laughs> man maa yàlla am de mhm. barki xaadimu rasul <laughs> cee sëñ tubaab bon wax baaxul siti uh-huh. mm-hmm. mun na dem ba jox la sinusite ngay gis bakkan bi di génne odeur mm-hmm. lii moo tax ñoom mënuñ faj sinusite parce que mënuñ faj siti yi ma fi tudd yëpp mënuñ ko faj parce que mënuñ faj l'origine sinusite boo gis siti la da ngay faj borom siti ba pare faj ko sinusite ma nag day site yi day indi mauvaise haleine déedéet mauvaise haleine leneen la dinañ ci ñëw ci beneen émission incha allah. Mhm. donc gis nga site li muy def ci nit. mais nag dans par par les maladies rhumatismales comme comme comme nerf sciatique comme hernie discale comme euh, euh, wax naa ko comme polyarthrite rhumatoïde comme arthrose. siti ñaar rek la ciy indi polyarthrite rhumatoïde bi ak arthrose bi képp koo xam ne faj naa la arthrose wala polyarthrite rhumatoïde te fajoon siti gaaw nga ñëw faj siti bi doo wér bàyyi leen nay njëkkee leen siti bi ba pare te ngeen bañ a yàkkamti mm-hmm. munoo ñëw rek parce que arthrose nga am nga bëgg maa commencé loo arthrose du ma ko nangu man damay faj xam nga bu doon xaalis rek arthrose quarante mille par mois ah site yi trente mille la kon nga ma jël quarante mille bi. mais man maa ne fay d' abord trente mille nga faj lii doo def noonu rek nga yaa xayti nga am jàmm ma am jàmm. Mm. boo pare doo faj arthrose bi dañuy ñëw surtout maire yi dafa métti nag métti ay eh, métti et puis et mm-hmm. léegi loolu pour traitement bi combien de temps lay jël docteur. c'était waaw wax naa la ko léegi. rappelé ko si sachet la c' est en moins de trois semaines. d'accord en moins de trois semaines tu es tranquille ñii di coow fi naan dañuy faj cité yëpp ay yaay cité ay pas cité ay mère cité dañuy coow rek c'est n'importe quoi. ñu bëri bëgg nañu ñëw ci yow mais xamuñu nu ñuy def loolu leen ci mën a wax. c'est facile ñu ngi Petit Mbao entre Petit Mbao am na ay kalando kalando booy nga ne ko docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi da ngay préciser nag ci mango yi docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi parce que bon ñoom ma may woowee docteur man du ma docteur. fajkat la xaw ma nag ndax docteur parce que docteur dafa bëri façon aussi ah mhm. xaafis alxuraan sax docteur la léegi nag dafa am beneen jàll bu ne foofu kooku côté Grand Mbao bi la nekk mhm. moo fa jiitu huit ans te bokkuñ sax médecine bokkuñ sax médecine mhm. bokkuñ sax lu ñuy def te boo ñëwee ci moom sax di nga xam ne du du ci jàll nga ñëw parce que man ci man man sama kër dañuy ram nit ñi dañuy bëri moom foofu kenn <laughs> yaa ko par contre goutte bokkul sax te kooku day fayeeku consultation quinze mille xaw ma dix mille. ah man du ma fayeeku consultation. Mm-hmm. man gëwuma yooyu nit ki moo gën a xam boppam. Mm-hmm. boo ñëwee soo waxee ma xam ne lii nga amee nangam nangam ñu waxtaan ma ne la jëndal garab bi doo ci fay wal di fay ay ticket d'entrée comme ça. Mm. ñu gis ma il faut ñu fay yooyu dóor ticket 3000 ticket 2000 ticket 1000 francs ticket 5000 ku koy def kàccoor nga sàcc nga maa ko wax. ay wala visite privée consultation privée fenn kese la. loolu bëri na te ma ne ay dealer maa ko wax. dina yoon naa leen lépp dina leer. Mhm. ñëp ñëpp dinañ fi jógee du gis nga. ñoom ñëpp ñu ngi noppi. ñaaw mhm. naa leen tôt man kese maay des ci ci YouTube bi ci réseau yi ci télé yi man kese man sauveur du peuple la. barki xaadimu rasul sama dara amu caaxaan 2016 jëm léegi lekkuma dërëm bu dewul te ñaanuma yàlla ku dul wér dugg sama kër te yàgg wax naa ko fii ci sa plateau bi nee naa képp ku nar a ci man defal deux rakka ñaan yàlla bu dee naroo wér yàlla boo ñëw sama kër boo yow yàlla nanga am benn gàllankoor nga bañ a ñëw gàllankoor bu positif nag waaw ñaan lu ma kenn musiba d'ailleurs sax boo nar a wér boo ñëw ñuy xulo boo ñëw sax dama lay dégager attention ma wax naa ko Pape Ngagne dem ma ne man bi ma commencé di génn Sénégal set ba léegi damaa neex. Mm-hmm. xam nga patient dañuy foog ne dama dama dama dama tàng dama méchant. Mm-hmm. dañuy ñëw daf leen di bett sax day gis ñuy naan nii nga simple. Mm-hmm. c'est que nag verbe bi moo xaw a difficile parce que man xaw ma maslaa. man dëgg laa xam. man ma sax recevoir ci néeg. kuy recevoir jigéen ci néeg tëj mm. bandi nga maa ko wax jaabur jaabur nga recevoir ko tëj yàlla ne laa tagr bu sinaan bu leen jege yow nga ñëw tëj <laughs> nañu waxante dëgg waay dëgg wër kay kenn sañeetul sax yónni jabaram ci ci fajkat mm-hmm. parce que da dañuy doxal sa jabar ah ciy dégg de ma lu nee la ñuy def man lu ne gàllankoor bu ne jéem nañ ko def <laughs> man je suis man tâche déedéet mu du inventé woon nañu fi lu ne ci réseaux sociaux yi bett nañ ma ak journaliste ñuy di n'importe quoi du léegi ñëpp xam nañ ay fen la hmm. benn jour ma ne ku kuy rey euh, suul sa ndey mooy nga defal ko lépp baneexu àdduna nga jox ko loolu mooy suul ndey waaye du dee rek nga nga def ko ci ci pax bi hmm. ah rek ñu ne il a enterré sa mais ku dugg nag ci vidéo bi après nga comprendre. Ah. jéem nañ def loolu yëpp pour rek ternir mon image mais mënuñ ko. lu yàlla taal. wa qul jaa al xaq. Hmm. wa zahaqa al baatil. inna al baatil kaana zahuuqan. la vérité est venue pour faire disparaître le mensonge n'est-ce la vérité qui fait fuir le mensonge. wa axiru daawaana. an alhamdulillahi rabbil alamin. ba yoon numéro bi c'est 77 203 08 04. jërëjëf ba beneen. ñu ngi liggéey samedi dimanche lundi à Petit Mbao samedi dimanche lundi. Mhm. Touba tous les mardis à partir de 15h bu ma kenn yee Touba mardi matin 15h lay commencé ku ñëw taxawal ci bunt bi ba 15h ñu ubbi nga dugg. d'accord voilà d'accord ñu jaajëfal leen euh, prochaine émission ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu hémorroïde. incha allah avec plaisir. Mhm.